dal leen ak jàmm di mbir mi nga xam ne rek moom moo soxal lii di wérgu yaramu ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yor lépp loo xam ne rek dafa dellu ci wàllu communication bu parti bi di fa ñoom nag niki tey daal di ñuy génn jot a def nag li nga xam ne rek moom mooy benn déclaration bu mucc ayib la ci ni nga xam ne rek noonu lañ ko xamle kënekat jamono yi ñu toll ni am na lu nga xam ne nag dootuñu ko koo nangooti ba tax ñu daal di dànkaafu képp koo xam ne rek yaa ngay génnee ay information yu nga xam ne yu leerul la rawatina ci wérgu yaramu ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko di tiital ñi nga xam ne rek ñoom ñooy askan wi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ay am di jàmmam ba fu ñu toll rek ñu di leen di woo ñoom ñi nag nga xam ne rek ñoom ñoo yor lépp lu dellu ci wàllu communication bu parti bi di Pastef daat say jota addu niki tey nag daal di xamle lépp lu nga xam ne rek lu jëm ci wàllu wér gi yaramu kii di président Ousmane Sonko nañ ko génnee ca nam nga xam ne rek noonu la gën a yelle ak na nga xam ne rek noonu la gën a rafetee kon nag bépp communication bépp boo xam ne rek gis nañ ko te nekkul communication bu jógee fi nga xam ne rek moom mooy Pastef mën nañoo jàpp ne kon foo la loolee nag ba ñu koy xamle di ko amal fekk na parti bi di Pastef ñoom ñi ngi doon amal benn conférence de presse conférence de presse bu nga xam ne nag ña ngi ko seqoon nag ñi nga xam ne sax ñoom ñooy waa yaanamar ak yeneen i leader daal di jot xamle nekkat jamono yi ñu toll nii kat mbir mi dafa yegg fa mbaxana doone benn maanaam waratuñoo seetaan di xoole ba ñuy laal ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko comme que nag tante nañ ko bile yoon ba am nañ ko tax ñoom ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Pastef daal di jot a xamle que ne nag li ñuy sàkku ci président de la république du lenn lu rek ñoom ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur nañ daal di delloo passeport diplomatique bi nga xam ne rek nangu woon nañ ko depuis ay jamono ci ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko ndaxte kat wér gi yaramam mayatu ko muy toog fi nga xam ne rek moom mooy Sénégal war naa dem ca réewum tugal mu daal di faju ji xoolaat li nga xam ne rek moom mooy aw yaramam comme ni nga xam ne rek noonu na ko naataangoom bii nga xam ne rek moom mooy maître Ciré Clédor daal di defee ni ki démb mu jël vol départ yegg ni ki tey nag ba commencé di amal li nga xam ne rek moom mooy ak caytu ci wàllu yaramam te nag mbir ma nga xam ne rek moom lañ leen sotti mën nañe ñoom ñaar ñoo ko bokkule yem kon nag gravité bi lum am ci maître mën nañ ne ka raw am na ci ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko kon nag lan moo waral ñu ma nga mën a bàyyi ki nga xam ne moom mooy maître mu dem faju ji moom mii nag ñu fa séenee te li nga xam ne rek moom mooy passeport am kat doo génn dëkk bi mbir moomee nag naqar yi ñu baree baree bari ci ñi nga xam ne rek ay patriote lañ ba tax jamono yi ñu toll nii mën nañ ne ña ngay continuer ba tey li nga xam ne rek moom mooy yëngu yëngal yi ci diwaanu Sénégal yëpp rek maanaam ci raison yi pour kat ne nañu daal di delloo passeport ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko boobu ba tey nag ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawu lépp lu delloo ci wàllu wér gi yaramam di suma assistance ñi nga xam ne rek depuis jéey ji am booba tey ñi ngi topp bu baax a baax a baax ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko wante kat ba tey ñoom it defaguñ benn déclaration lu mooy nag ki nga xam ne rek moom moo yoroon lépp lu dellu ci wàllu communication bu usmaan Sonko ni kiy démb ci guddi gi gis nañ mu daal di génn nag daal di tas ful bi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkoon ci buntu suma assistance parce que nag ndigal la loo xam ne rek dafa jógee ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom moomee nag moo xamle que ne kii di président lim xamle du lenn lu dul donte le wér gi yaramam mayu ko ko te tamit mënta jug génn fa mu nekk di biir suma assistance wantekat kat li mu sàkku ci yéen moom mooy ngeen toog diglu ko te nag jamono yi ñu toll nii nekkul jamono boo xam ne bu yox-yoxi la wala jamono bu dellu gannaaw wantekat kat li muy ñaan te di ko sàkku ci kepp koo xam ne yaa ngi fii ci bunt bi rek mooy na nga delluwaat sa kër nga toog te diglu ko ndaxte kat dafa am ñeneen ñu di ci biir te tamit l'hôpital la bu nga xam ne rek moom mii di Ousmane Sonko dong nekk fa parce que am na ñoo xam ne ñeneen lañ ñu hospitalisé ñi nga sa biir foofee kon nag dérangement boobu nga xam ne rek ñoom ña ngi koy jot te seen wér gi yaram demewul noonu man mi dong bu mu tax nag ngeen dikk rek bëgg leen ko xañ loole nag di ay kàddu yu nga xam ne rek gannaaw bi ñu ko daal di yëkkatee ful ba daal di tas jaare ko foofa nag ni kii tey ci suba gi am ay yennati doomi aadama yu nga xam ne rek ña nga doon doxantu ba foofa wante kat bu ñu xoolee dañuy gis ne kàddu gi benn la mooy li ñuy laaj nekkat nañu daal di delloo ca nam gën a gaawee passeport ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ndaxte kat wér gi yaramam mayatu ko ko lu fekk nag booba jamono boobu ki nga xam ne rek dem foofule ca France nag pour daal di gën a caytu ji lépp loo xam ne wàllu wér gi yaramam la rek yenn nat ci ay jàngatkat rawatina ñi nga xam ne rek ñoom ñooy France vingt 24 gannaaw nag ay interview yu nga xam ne rek gis nañ yenn nat tele daal di koy def daal di naqarlu bu baax a baax a baax mbir mi nga xam ne rek am na le 16 mars bi nga xam ne rek moom la ñu génn muy mbir mu nga xam ne rek képp ku nga xam ne tey sénégalais nga mën nañ ne naqari na la képp ku nga xam ne rek doomu réew mi la moo xam yaa ngi fi wala nekkoo fi naqari na la ba yegg ca lool li ko waral nag du lenn dul rek jënn jëm ju nga xam ne rek bëgg naa poser li nga xam ne moom mooy candidature am am xalaat ci réew mii di Sénégal war kaa wax war koo partagé ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy askan wi wante kat nguur ne ko kat fii kat mën nañ ne doomu baadoo la du fi taxawal taxawalu te sax nekkul palaasu doomu baadoo la kon nag da ngeen di toog ba ñun ñi nga xam ne ñoo yor nguur doyal niñ koy faral di waxee rek maccum tàngal bu jeex da ngay fas yéene yootu beneen ne kat loolee moom mooy nguur ta nag buñ ko waxee xel yëpp dana dem ci jamono yi ñu toll nii ci ki nga xam ne rek moom mooy président Macky Sall mi nga xam ne rek li muy yootu du lenn lu dul troisième mandat te booba ba tey nag mën nañ waxul lenn lu leer loo xam ne rek askanu commencé jàpp li askanu sunu gaal mën a jàpp ci jamono yi ñu toll nii nag moom mooy ne réew mi rëb na ba passé rëpp gannaaw nag ay bakkan yi nga xam ne rek jot naa rot sax ni ki le 16 mars bi ci benn waay bu nga xam ne rek foofule ca Pikine ci information yi nga xam ne jot nañ ko nekkat benn oto boo xam ne rek ay nervi ñoom ñoo sa nekkoon ñoo jot daal di foncé ci kawam nag ba mu amoon ay blessure yoo xam ne rek gannaaw bi ñu ko rawalee fi nga xam ne rek moom mooy l'hôpital dafa mujj daal di jaare ñàkk li nga xam ne rek moom mooy bakkanam loolee nag di ay xibaar yu nga xam ne rek jot nañ ko di leen fas yéene toppal nag li nga xam ne moom mooy info yooyee ndaxte kat moom moomee nga xam ne ci information yu jot ke ne bokkul sax ci ñi nga xam ne tey dañ doon manifester nekkat da doon livré ci foofee nga xam ne mooy diwaanu Pikine gannaaw nag bi mu gisee rek ñi nga xam ne ñoom ñooy oto nervi yi di ñëw ci la doon jéem raw jaawale li nga xam ne nag moom mooy ab bakkanam di daw wante nag tàbbi ca ndox ma tarxis daanu oto bi jaar ci kawam di leen di jaajëfal wax ngeen wéy di ab